bokk internet di Sénégal yi ñu seetaan tey ñu ngi woon fii si yof xur wi jàkkaarloog soxna Salimata Mbaye doon def ak moom spécialement 8 mars tey si occasion moom benn xale boo xam ne dafa wàcc yem si ñu xool si kanamam benn tristesse waaye ñu bëgg a waxtaan ak moom rek kon déglu leen ko tuuti maa ngi lay nuyu yow ñu gis sa kanam tey benn euh, tristesse ñu bëggoon xam lan moo ko waral ah, dama dem école tey dégg élèves yi naan dañ tëj kii Khalifa Sall ñu waruñu ko tëj parce moo ñu daan jox ay meew ay tën yu ñuy jàngee ay dàll. waaw yow danga xamoon Khalifa Sall. déedéet. mas ngaa gis Khalifa Sall. déedéet. lanam nga daan gis yi mu daan indi foofu rek. waaw léegi kon loolu moo tax tey nga am naqar. ba mu melni sax da nga ne meew biñ la joxon meew bi mëno ko naan ndax da nga am na xër waaw Macky Sall nag ñu kay ñaan ñu baye ko ndëg lan ngeen di ñaan président ñu kay ñaan mu baye khalifa kuy jappalé xalé da nga wara jappalé waro ka ya xal ndeysan ndeysan mu melni abdou wax na ben message bu doy war yow ban na école ngay jàngi école 3 kan moy sa kan moy sa monsieur wala sa madame madame sarr madame sar waaw moo lay jàngal. waaw. Euh, léegi yow ban classe ngay def. CM1. CM1. waaw. kon yow do sa soutien si khalifa yow en tant que xale mo lan lan lay nek da ngay dem talpone wala da ngay wacc ci terrain bi wala da ngay lan ngay def. lu jar rek dinañ ko ci def. lu jar rek di ngeen ko ci def yeen xale yi. waaw. waye dal yeen a ngi ñaan président pour que mu bayyi khalifa waaw kon waxal ak président fii. président ñu ngi lay ñaan nga bàyyi xalifa si jëmmi élève yëpp. duñ fi nekk na du taalay pona di lii rek ñu ngi lay ñaan dañ lay ñaan rek. mu mel ni émotion la boo xam ne mu ngi am si kanamu xale yi jëm si ki nga xam ne tey mooy la maire xalifa sàll mu nekk un exemple boo xam ne tey xale yi ñu ngi koy wax ku laan jàppale xale yi la tey yàlla dogal caabi féete ko ginnaaw waaye ñu koy ñaanal rek. foofu ko yàlla teg moom moo xam lu tax ñu koy ñaanal yàlla rek yàlla defal ko jàmm yàlla may ko wér yàlla delloo si ko waat si kanamu liggéeyam delloo si ko waat si ay soxnaam ak ay njabootam gépp te di fàttali gaay rek ne suñu borom parfois bu naree defar mën naa mel ni ku yàq waaye boo manewul ay nattoom rek mën ngaa bañ a fekk ay teraangaam kon xale yi ñu ngi feeñal seen cofeel ak seen solidarité ak seen soutien si le xalifa Khalifa di ko ñaanal ci 8 mars bi nga xam ne tey jigéen ñi lañ ko jagleel ku nekk xam na ne luñ jagleel jigéen xale am na si cër xale yi yëgee ko noonu waxee ko noonu kon ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp di wax ne rek président si kàddu xale yi ñu ngi lay ñaan le plus rapidement possible nga bàyyi xalifa mu dellu si ay activité nga bàyyi ko mu dellu si li nga xam ne moom la xale bi wax léegi muy activité jeunesse bi mu nekkoon kon loolu xale yi ñu ngi la koy ñaan solennellement euh, abdou kon dañ lay bàyyi nga tàggoo la ngay tàggoo Macky Sall daal ñoo ngi ñaay ñaan rek nga génn fi yàlla jaam bi mu gën a bëgg rek lay teg natt jaam bi yàlla bëgg moom lay teg natt kon da nga gis ne natt boobu la teg xalifa waaw ndeysaan xalifa kon ku baax la waaw ñaanalal yaayam hmm? kon lan ngay dénk yaayam ak jabaram ak ñu ñu ngeen wax rek dina génn rek dina génn si yàlla àndee dina génn jarul tiit jarul dem dara. ñu muñ. kon jërëjëf Abdou ñu ngi lay jaajëfal bu baax message bi jàll na bu ko defee bu soobee yàlla fi mu war a jaar yëpp dina fa jaar pour ñëpp dégg ko ci kàddu xale yi. peace and love xale yi. Pege Abdou.